xam kon ay jëmurit ay jëmurit ay jëmurit jëf jël jëf jël jëf jël ay yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di soññi bu baax ci liggéey kër Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne moom la ñu war a taxawal fii ci Yara liggéey boobu nag dañ cee am ndigal lu jugee ci xalifa général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha mu jox ñu ci ndigal waaye ñaanal ñu waaye xamal ñu ñu na ngeen leen ci jël ci ginnaaw da ngeen xam ne mu ak yéen koy àndal te na xel dal na ngeen xam dina sottee jàmm mbokk yi suñu xel dal ci bi ba mu leer ñu dina ndax am nañ ci ndigal am nañ ci ñaanu Cheikh kon ku ci jàpp mu dem ku ci jàpp mu dem mbokk yi kon jàpp leen ci ndax mu sotti te liggéey boo xam ne boo ci jàppee mu dem boo ci jàppul mu dem dama cee fexe jàpp rek ngir bu demee nga bokk te ñeboo a dem kon na ci ko ci mbàkkal mi ngi nii muy liggéey kër Sëriñ Tuubaa waa leen ci maire fond loxo mu dem ay ca murit mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di ziara asalaamaaleykum wa rahmatullah aja yow yow ana wo ci marché ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen fàttali liggéey bu màgg bi nga xam ne moom la ñuy baaxoo di ko fi indi saa su nekk muy projet Kër Serigne Touba bi nga xam ne am nañ ci ndigalul Cheikh mohammed al muntaha ngir mu taxaw Terima Gracias. yal na yàlla may la jërëjëf yal na yàlla may la. ayca ayca ayca ayca soxna yaa ne ñoo ngi ziar soxna Ndeye Diallo gis naa laa gis jërë ngeen jëf man fan tam jërë ngeen jëf ànd kon liggéey boobu sotti na ba noppi waaye nag da di liggéey boo xam ni ñun ñëpp ñoo ci war a def ñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm ak suñuy million Ismaïla Diagne jawriñ jawriñ jawriñ jawriñ bu mag jaa ngi nii waaw jawriñ mooy boo ci dugalee sa alal alxuraan dugal nga ko ci xam-xam waaye dugal nga ko ci lislaam kon nag mbokk yi teebuñu dërëm waaye nawuñu melew kon nag ñu ngi leen ci soññi bu baax a baax a baax liggéey kër Serigne Touba la boo xam ni incha allah balaa yàgg des na ko tàmbali te loolu nag bëgguma kat ëllëg yomal xiyaam ñuy daje kenn mu ñuy mu ñuy paña naan ñu ah yëguñu ko woon yëguñu ko woon yëguñu ko woon daal laay bañ waaw man nag li ma war mooy jottali message bi ku yëg bu ma sañoon nga def bu ñuy fayeeku ñëpp kon nag yàlla nañu yàlla may doole poos ba ñu jëf waaye taxaw xam-xam jëriñ ñu lay ziar baax yàlla place bi barkeel yàlla na barke barkeel barke waaw li am solo mooy boo dundee ba bàyyi koo fi nga bokk ci ñi nga xam ni bàyyi nañ fi trace bàyyi fi trace nag bu ma koy wax mooy bàyyi fi trace bu baax moo tax may wax te trace bu baax mooy nga bàyyi fi daaray alquran wala nga bàyyi fi daaray xam-xam wala nga bàyyi fi daaray tarbiya joo xam ni dañ fa yare wala sax nga bàyyi fi barab boo xam ni julli ñi dañ fay daje di waxtaan seen diine yooyu yëpp bokk na ci nga bàyyi fexe ba bàyyi fi lu baax barab bii ñu bëgg nag mooy barabu Sëriñ Tuubaa bi daa lamboo mboolem yooyu yëpp lamboo alquran lamboo xam-xam lamboo tarbiya kon nag ku ci def sa benn dërëm na la wóor def nga ko yooyu yëpp kon ñu ngi ci soññi ñëpp jamono ji ñuy wax a yéen yëkkati nañ ñu alal ju bare bare def ci waaye nag bëgguñoo jël lépp bàyyi bàyyi suñu bopp moo tax dañ ciy woo jullit yëpp ngir ñu ànd ceeg ñun liggéey boobu nag balaa yàgg dara dina tàmbali insha allah waaye bu ñu sañoon képp koo xam ni yaa ngi wax ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sa dërëm dina dem ci liggéey boobu ndax ku ci dugal sa dërëm doo ko rëcc kon nag mbokk yi bu kenn seetaan ndax bu seetaan ñeetaan man waaye bëgg a bari la dama koy nangoo joxe ba joxe ba joxe jeex nag joxe ci lislaam moo ñu gën kon nañu joxe suñu alal ci lislaam ngir bu ëllëg di leen ziar di leen yëgal liggéey bu mag boo xam ni muy liggéey kër Serigne Touba ci Yaraax liggéey boo xam ni am nañ ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha ngir taxawal ko muy kër Serigne Touba gi ñu taxawal ci di war am yoo xam ne ku si nekk ci ñun sam njaboot mën na faa jàngee ba wat alxuraan waaye jàngee fa xam-xam boo jàngee alxuraan ba noppi ba xam sa diina ñu ko waaye muy daara joo xam ni dañ faa fas yéene tarbiya xale bi ba bu noppee mën a amal boppam njëriñ waaye amal ko ay mbokkam. ñaan suñu borom def nañu dimbalam ak taw bi xam ba ñu sottal ko jàmm te muurloo ko barab baa ngi noonu kër Serigne Touba ci Yaraax am na ci digal Cheikh Mouhamadou Mountakha incha allahu taala balaa yàgg dana léegi sëñ Touba Touba Yarax mbokki jullit yi waaw leen góor waaw leen góor asalaamaaleykum ñu dina sotteeg jàmm nañu xam ne yéen li ci def rek mooy suñu yitte kon nag kër Sëñ Tuubaa boobu kër këru alxuraan lay doon këru xam-xam lay di leen yëgal yëgal liggéey bu màgg boo xam ne moo am ndigal lu bàyyi ko Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général des mourides ngir ñu war koo tàmbali balaa ñu ngi leen di soññ ci liggéey bu màgg muy liggéey kër Serigne Touba ñu war a tàmbali fii ci ginnaaw biñ ci amee ndigalu Cheikh ngir war koo amal waaye am ci ndigal ngir yaatal ko ci mbokk julli yépp ngir ku ci nekk mën cee dugal aw Serigne Touba boobu nag la bokk ci programme ba mooy daare alxuraan bu mag. Thank eh, you. Belgium. Benn, dinañu leen sant lool fi yàgg te wér kon barab boobu balaa yàgg nañ ko commencé ñu ngi ciy woo jullit ak taalibe bu kenn am dërëm ba ba ko bu kenn million ba ko ndax liggéey bi la di liggéeyal lislaam liggéeyal suñu borom nag lu ci waay di def lu mu bari bari bul ko naw ndax suñu borom lu mu def Thank you. salaamaaleykum euh, mbokk waa internet ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax tey nag ñu suñu sixième euh, caravane bu ko defee ñu jox sëñ Modou bi moom moo jiite liggéey bi mu sànni ci ay kàddu bisimilah sëñ ah, salaam wa rahmatulah sëñ Youssou ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yow di ziare waa Kappa bi yëpp di leen euh, sargal di leen ndokkal ndokkeel ci liggéey liggéeyu màgg bi nga xam si ni. saa su nekk ñu ngi koy ànd ak ñun muy projet Kër Sëñ Touba gi yaakaar naa tey la juróom-benneel muy sixième te saa su nekk gis nañ suñ koy def capacité bi dañuy taxaw di jël lépp loolu nag yaakaar naa bala ñoo dugg ci waxtaan wi saa su nekk dañ koo war di rafetlu te di leen ci ñaanal suñu borom defal leen ak yokkute ci seen site bi waa xam ne li ngeen si jublu lépp da ngeen ko ci am barke Sëñ Touba. liggéey bi nak liggéey projet keur seigne Touba gi yaakaar naa ginnaaw biñ ci amé ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha ba aksi fi ñu aksi di 6e caravane kon yaakaar ni ta caravane bu jall rek moy gëna fa fawaxa yi wessu kon yaakaar naa loolu la li am solo rek moy ñu gor si te gën ci taxaw bu baaxa baaxa baax ta xamni insha allah ni taala na Cheikh Mouhamadul Mountakha waxe ginnaw bi mu joxe ndigal ba nopi moy na ngeen ci jam seen xel ta rafet ci ndior ta xam dina koy and lolu ci lañu nek moo taxit suñu fit da ciy dolleeku suñu ngor suñu jom lépp da ciy dolleeku te incha allah dinañ ci am ndam ndax it euh, li ñu weesu wan nañu ni li ñu li ci nekk suñu kanam incha allah dinañ ci am ndam te ndam li mooy ñu góorgóoru si rek gën a engagé wu gën a volonté wu te xam ni liggéey Sëñ Tuubaa amul deltu ginnaaw te waxi si Abdoul Ahad ja rek foofu la ñu nekk mooy dañuy engagé wu te xam ni dox doxin woo xam ne mooy ku dem ñu dem ku demul ñu dem ndax képp ku wax te muy dëgg ci yow lu mu yàgg-yàgg boo geesoo di a gis sa mbooloo ci sa ginnaaw te foofu la ñu nekk incha allah engagé wu nañu jaayante nañ suñu sëñ Touba joxe nañ suñu kàddu ci suñu diggante sëñ Touba ba noppi de dootuñ ci dellu ginnaaw moom suñu bakkan lañ ci teg ndax njabootu sëñ Touba de sëñ sëñ Touba gi ku mel ni Cheikh Abdoul Ahad da daan jël bakkanam daan ko teg ci liggéey bu sëñ Touba comme njabootu sëñ ñoo daan jël seen bakkan di ko ci liggéey bu sëñ Touba sàkkantuma la ñun taalibe yi sëñ Touba yi nga xam si daanaka matuñ ko sax ay taalibe kon nag suñ liggéey bu sëñ Touba bi suñu bakkan lañ ci teg moom day sotti rek wala ñu wala moom. yan yokkute moo ci am kay yokkute yi gis nañ ko mooy fi mu toll nii daanaka li ñu li nga xam ne mooy mooy mooy dëgg-dëgg projet bi moo koy taxawal mooy koppar te koppar yi ku ne gis na ni mu yokko yaakaar naa diggante diggante bu gàtt nga àgg ci 16 million 16 millions yoo xam ne taalibi Sëriñ Tuubaa yi rek yu yu tut tut tuut tuut tànk yi ñoo ko dajale ci diggante 1000 francs 5000 ak junni ñaari junni ñu daje ci 16 millions ci diir bu gàtt loolu yokkute la. kon yaakaar naa ne li ñu bëgg loolu war na tax ñu xam ni day jëm kanam te liggéey bi projet bi dara du ko sottal dul xaalis te xaalis nag somme bu toll noonu ku ko mën a dajale ci diir bu gàtt boobu da nga xam ni yokkute la waaye tawfeex sëñ Tuubaa la ndax lu daa doon lu jafe te yombuñu kon nag loolu ak cant la kon daal li may digal ñëpp mooy ñu engager gën a engagé tax xam ni amul dellu naa amul déng déngal avancé rek bu mu sotteek jàmm incha allah yàlla nañ ko sottal te mu sottee suñuy loxo te ñu muurloo ko barki Seydou Khadim. waaw bu jógee ci caravane yi ak ak général yi ñuy def yan xalaat yu bees yoo xamante ne mën nañ ko def yeneen yoo xamante ne yu bokkul ak caravane ak daayira général yoo ne dina war a mën a indiwaat xaalis yoo xamante ne bokkul ak yooyu. xam caravane yi ak daayira général yi ak euh, njaayum carte yi def par weer de te di ko def ci ci koñ yi boo xoolee mooy tout tànk yi nga xam si ni dañoo am yeneen liggéeyal sëñ Touba te am ay téeméer ay 1000 francs am seeni cent francs ñoo ñu ñooy ñoo ñooy ñi nga xam si ni ñoom la caravane yi concerné mais fi ne ci kanam tuuti dina dem dina àgg ci ñi nga xam si nag ñooy suñuy kilifa te yàlla dogal ñu may yàlla may leen koom ci kanam tuuti ci ñoom lañ jëm ndax ñoom dëgg-dëgg liggéey bi nag am na foo xam ne bu ñu fa àggee ñoom ñoo ñoo ñoom la ñuy soxla kon ñun nag li ñu war mooy départ ci suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm ba yëf yi taxaw bu taxawee nag dëgg-dëgg ñu dem ci ñi nga xam ne ñoo ñu te ñoo ñu ëpp barke ñuy taalibi suñ suñ Tuubaa yu mag yi boobaa dina dem ci ñoom ku ci nekk ñu àggale liggéey bi te ndax xam nañ ñoom ñëpp am nañ yéene liggéey Sëriñ Tuubaa waaye nag nit tamit bala nga woo ci dara da ngay xam ci li nga koy woo mooy lan mooy nga tegal ko lu leer loo xam ne boo ko woo boo ko ci woowee dina la mën a wuy si foofu lañ jëm te incha allah léegi ñu àgg fa incha allah. yan kàddu ngay wax ci Capa TV. ah ñi may seetaan kay mooy leen ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi rek soññi leen ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne engagé nañ engagé nañ ci ba nopp te duñ ci dellu ginnaaw wax naa la ni njabootu sëñ Tuubaa gi dañ daan jël seen bakkan di ko teg ci liggéey bi sëñ Tuubaa ñun nag matuñu sëñ Tuubaa sax ay donga kon nag ñun suñ suñ bakkan bi dañ ko teg ci liggéey bi faaw mu sot foofu la ñu woo ñëpp ñu nekk fa incha allah. sa kàddu gu mujj. ah kàddu gu mujj mooy nañ nekk ci liggéey bi sëñ Tuubaa rek ba keroog ñu koy fekk loolu rek mooy kàddu gu mujj. waaw ah, ah, jërëjëf. Adja ah nee leen nee leen nañ ñëw ci addee suñ ci waaj du dugg fe ah, ala kii xaarim amul ñu leen fël waa léegi nañ taxaw ko ah waa dëkk bi ah ñoom ñoom suñ Cara,